jërë ngeen jëf si seetaan bi ngeen a seetaan QTV ak déglu bi ngeen a déglu Q Radio ñu dalal leen si seen jotaay bu mag bi di jotaayu xibaar yi ñu fesal boppi xibaar yi ay ministres di ay jëwrin bokk na si jëwrin ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu biti réew di rek ministre of ak jëwrin ji nga xam ne moom lañ dénk koppar ak koom mi réew mi di rek ministre of finance ak jëwrin ji nga xam ne moom lañ dénk euh, mbirub nag li nga xam ne moo di soldat yi rek dal ministre of defence ak jëwrin ji nga xam ne moom lañ dénk mbiru dem ak dikk gi di rek ministre of transport infrastructure ak jëwriñ yi nga xam ne moom lañ dénk ndaw ñi uh, ak daal wàllub tàggat yaram di rek ministre of youth and uh, sports ñoom nag teewoon nañ foofu si li nga xam ne moo di pencal ndawal réew mi di rek daal national assembly bi jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoo toogal askan foofu si pencal ndawal réew mi laaj ak tontu daal dox seen diggante ñoom député yi ak li nga xam ne moo di jëwriñ yi dinañ ko yaatal si biir li nga xam ne moo di xibaar yi gannaaw nag bi mu dajee ak njiiti réew mi di euh, président Adama Barrow moom ki nga xam ne daal ku ñu nag ràññee la si rek wàllub li nga xam ne moo di waare di nag waar li nga xam ne moo di askan ñu nag ràññee si li nga xam ne moo di àddina si mufti menk noonu lay wuyoo moom nag daal demoon na nemmeeku ji njiiti réew bu Gambia di euh, président Adama Barrow si rek màkkaani réew mi di rek daal State House nekk foofu si diwaanu li nga xam ne moo di Banjul bi mu génnee doon nag wax ak way taskatu xibaar yi moom Cheikh Mufti Menk moom nag daal dina xam ne daal euh, réew Gàmbi daal daanaka nag ab réew la bu ko yéem la si rek wàllum daal ak jàmm ji nga xam ne réew mi mu ngi koy nag wëyandi di ko nag daal di am mu ne naam géej na géej na fi ay ati at nag waaye bi mu ñëwaatee gis na ne am na daal ay nag yokkute nag yu baree bari yoo xam ne daal euh, teg na si li nga xam ne moo di ay nag daal butam bokk na si ay yoon ak daal li nga xam ne moo aju si rek wàllu li nga xam ne moo di ay tabax kàddu yi nag mu ngi ko dénk way taskatu xibaar yi bu mu génnee don bi mu génnee gannaaw bi mu nag daal euh, seqe waxtaan ak njiiti réew bu Gambie di presse président Adama Barrow dinañ ko yaatal si biir xibaar yi yi ak yeneen gannaaw bàkka bi ñu daal di yaat alxames la fukki fan yi ak juróom-ñeneent si weeru septembre atuma 2024 di atum ñaari junne ñaar yi ak ñeneent ñu dalal leen ci seen jotaay bu mag bi di jotaayu xibaar yi Ibrahim Khalil Gueye moo leen di yaatalal xibaar yi ñu yaatal xibaar yi ay ministres di ay jëwriñ bokk na si jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu biti réew di rek minister of foreign affairs bokk na si jëwrin ji nga xam ne moom lañ dénk koppar ak koom-koom yi réew mi di rek minister of finance and economic affairs bokk na si jëwrin ji ñu dénk mbirub dem ak dikk gi di rek minister of transport bokk na si tamit nag daal jëwrin ji nga xam ne moom lañ dénk mbiru ndaw ñeek tàggat yaram di rek minister of youth and sport ñoom ñëpp nag daal teewoon nañ foofu si pencal ndawal réew mi jàkkaarloo ak ñi nga xam ne rek ñoo di ndaw askan wi di daal ñi nga xam ne ñoo toogal askan foofu si rek pencal ndawa réew mi laaj ak tontu nag daal dox si diggante euh, député yeeg li nga xam ne moo di daal euh, euh, jëwriñ yi si li nga xam ne moo di nag daal laaj tontu boobu nag daal bokk na si ki nga xam ne jàkkaarloo na ak député yi laaj ak tontu nag dox si diggante moom ak député yi mooy kuy wuyoo si Sidi KM Keita moom nag mooy ministre of finance and economic affairs maanaam jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk koppar ak koom-koom di nga xam ne moo daal réew mi moom ministre of finance Tirak Sidi Keita bi mu nag doon tontu ab laaj boo xam ne eh, ki ko ko laajoon mooy ki ñu xamee si honorable Samba Diallo moom honorable Samba Diallo moo toogal askanu Ñaamina Dankunku foofu si li nga xam ne moo di pencal ndawar yi moom eh, eh, député bi li mu nag laajoon pour ak daal ministre bi leeralal ko ko mooy nag li nga xam ne moo di oto yi nga xam ne nguur gi jëndoon nañ ko laata nag daal réewu Gambie doon nag dalal xew-xew bu mag boo xam ne réew Gambie nag dalal leeralal na ko bu yàggut rek waaye si summit bi oto yi nga xam ne moom nag li nga xam ne moo di koppar moom ki nga xam ne moo di honorable Samba Diallo nag daal loolu nag daal la laaj ki nga xam ne moo di ministre wala jëwriñ ñi nga xam ne moom nag lañ dénk mbiru koppar ak koom-koomi réew mi moom sii di MK KM Keita bi moo nak daal di tontu li mu nag daal di wax daal mooy naam jëndoon nañ li nga xam ne moo di ay oto laata ñu doon dalal xew-xew bu mag boo xamee si OIC summit boo xam ne réewu Gambie dalal na ko li nga xam ne moo dal réew mi wax na ne nag li nga xam ne moo di oto yooyu nag daal Euh, comme ni ko député bi di waxee moom député bi nag fa wax ne nguur gi téeméeri oto lañ jënd waaye moom ministre bi nag daal dina ko gàgganti ne ko nag matu téeméer daanaka 85 euh, la woon mu di juróom ñett fukk ak juróom si nag ay oto nag lañ nag daal di euh, jëndoon te nag li nga xam ne moo di oto yi yoon yi nga xam ne moom lañ toppa nag pour jënd ko nag daal yoon nag yu leer la gannaaw bi nga xam ne am nañ si ndigalu GPPA te nag daal am na daal ay nag companies wala ay këri këri liggéeykaay yu bëri yoo xam ne daal tàllaloon nañ leen nag loxo pour daal ñu ñëw wane seen boppa ndax daal ñoom mun nañoo nag daal di jaay oto yooyu li nga xam ne moo di nguur gi wax na si wax na daal li nga xam ne moo di uh, compagnie si nga xam ne ñoo nag daal jébbale woon uh, seeni ay nag uh, këyit pour daal ñu seet daal kan lañ see tànn mooy nag compagnie bu si mel ne Saibane et Madi bokk na si TK Motors bokk na si Espace Motors bokk na si Asata Motors bokk na si Lansan Motors ak ak Cornerstone daal li yii nag mooy compagnie wala këri liggéeykaay yi nga xam ne daanaka ñoo jébbale woon seen ay këyit ñu war a tànn daal eh, ñan nag daal eh, nguur gi di jëndee oto si ñoom waaye nag wax na ne bi ñu nag amalee li nga xam ne moo di ay càmbar nag daal nemmeeku nañu daal espace motos daal daanaka ñoom nag daal ñoo nag nekkoon si rek daal jamono ju jàkk si li nga xam ne moo di jamono jooju maanaam daal ñoom jagoon nañ lool eh, pour war a nguur gi war a jënd oto si ñoom wax na ne daanaka mbir mi sax dañ ko xaajoon espace motos ak daal ticket motos waaye nag gannaaw gi ñi nga xam ne ñoo di ticket motos nag daal daanaka mujjeewuñu nag daal di am ab nagutoo ak li nga xam ne moo di nguur gi ba tey nag daal espace espace motus daal daanaka ñoom lañ mujjee jébbal yëpp nag daal ñoom euh, gannaaw bi nga xam ne daal ñoom nag daal euh, lañ jàpp ne daal Euh, ñoo nag euh, daal euh, jagoon si li nga xam ne moo di jamono jooju daal espace Mouros daal si lañ si la ñoom nag daal ñoo jaay oto yi li nga xam ne moo di nguur gi moom député bi la laajoon na ministre bi ne ko oto yooyu gannaaw bi ñu ko jëfandikoo si rek xew mi ba noppi ana daal fan la oto yi nag daal di dugga moom ki nga xam ne moo di ministre bi li mu tontu daal mooy oto yooyu jamono ji jébbal nañ ko bànqaas bi nga xam ne moom lañ xamee si rek daal government controller in charge of vehicles maanaam bi nga xam ne daanaka ñooy saytu euh, daal bépp oto boo xam ne nguur gi nag daal ñoo ko moom ne daal oto yi nag si seen nag loxo la nekk si jamono ji ki nga xam ne moo di Seni Jawara mooy member of uh, National Assembly member of Lower Saloum maana moom moo toogal wàllu Lower Saloum foofu si pencal ndawa réew mi moom mi nag daal dina laaj ci ministre bi nag kon nag daal li nga xam ne moo di daal koppar yi nga xam ne moom ngeen jëndee li nga xam ne moo di oto yi nag daal fan ngeen ko nag daal di jëlee moom ki nga xam ne moo di ministre Keta bi moo tontu nag wax na ne koppar googu nag daanaka koppar la goo xam ne ñu ngi ko jëlee si li nga xam ne moo di banque bi ñu xamee si ECOWAS banque for investment and development ne daal ñooñu nag daal eh, ñoo nag waroon a abal nguur gi daanaka nag koppar nag daal gu toll si fukk ak juróomi million si koppar li nga xam ne moo di dollars di rek koppar yi li nga xam ne moo di Amérique pour rek nguur gi mun a li nga xam ne moo di oto yi waaye nag wax na li nga xam ne moo di bor boobu nag daal daanaka nag daal dafa nag yéex a nag daal yegg si loolu sax waral nag daal nguur gi sàkk woon si rek espace motos ñoom nag daal ñu nag lebal leen li nga xam ne moo di euh, la daanaka daal nguur gi nag daal fayaguñ sax daal lu toll si 20 euh, pour rek la ñu a li nga xam ne euh, moo di daal compagnie boobu ñu xamee rek turi nguur gi nguur gi nag war leen a daal daal di eh, fayaat li nga xam ne eh, moo di daal eh, koppar googu Yaya Menteng Sanyang moom nag mooy National Assembly member bu Latrikunda Sabiji moo toogal askanu waa Latrikunda Sabiji si pencal ndawal réew mi moom nag daal laaja mu ko jëmale si ki nga xam ne moo di ministre wala jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu biti réew di rek Momodou Tangara moom ki nga xam ne eh, moo di daal eh, Yaya Menteng Sanyang laajam daal mooy eh, nak daal ministre bi nag na ko tontu si rek lu aju si rek wàllu bi nga xam ne moo di sarta yi nga xam ne moom nag daal la ambassadeur si maanaam ñi nga xam ne ñoo toogal Gambie si biti réew si nag yan sarta nag la ñu war a tënku ba nag daal bu fekkee daal dañ daal def loo xam ne daal defuwul euh, su ko defee nag yar mun leen a nag daal di euh, dal bi moo nag joxe ab tontoom moom euh, foreign affairs minister Tangara wax ne na daal li nga xam ne moo di sarta yooyu nag daal am na li koy futneel mooy nag daal am na ñenn ñoo xam ne daal dañ togal Gàmbi si biti réew def nag daal loo xam ne daal defuwul daanaka nag daal yar gi nag daal mujjee na mujjale na mujjee na leen a dal bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di kàddu yi ministre euh, Tangara ji rek ministre of foreign affairs di jëwriñ yi nga xam ne moom nag lañ tënk wàllu biti réew li nag daal ay laaj ak tontu la yoon yoo xam ne mu ngi doon dox si diggante ak ay ministres di ay jëwri ak ñi nga xam ne ñoo di ay national assembly members maanaam ñi nga xam ne ñoo toogal askan foofu si pencal ndewal réew mi ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di daal xibaar gan gu mag goo xam ne mu ngi wuyoo si Cheikh Mufti Menk gannaaw bi nga xam ne daal moom nag ab waarekat la bu ñu nag ràññee la si li nga xam ne eh, moo di daal ajina si mu ngi nag jamono ji fii si biir li nga xam ne moo di daal rew mi demoon nag daal nemmeeku ci njiiti réew mi di président Adama Barrow si rek màkkaani réew mi di State House nekk foofu si diwaanu li nga xam ne moo di Banjul moom ki nga xam ne moo di Mufti Menk bi mu nag daal jàkkaarlu ak njiiti réew bu Gambie di président Adama Barrow bi ñu nag waxtaanee ba noppi bi mu génnee doon nag wax ak way taskatu li nga xam ne moo di xibaar yi moom mufti wala seex mufti maintenant mu ne daal mbégte kontante bi nga xam ne wax ne daal saa yu nag ñëwee si biir réew Gambie daal dina nag nemmeeku ne daal réew la boo xam ne daal daanaka jàmm ak dalam dal bi nga xam ne moom lañ ko xamee daal daanaka ba léegi mu ngi wéyanti di am fii si biir li nga xam ne moo di réew mi leneen tamit loo xam ne daal wax ne daal teg na si ay butam nag daal mooy nag li nga xam ne moo di ay nag yokkute yoo xam ne daal teg na si butam bokk na si ay yoon ak li nga xam ne moo di tabax yoo xam ne daal daanaka wax na ne bi nga xam daal ñëw na fii juróom-benni at juróom-ñaari at ci gannaaw nag daal bi mu ñëwaati daal gis na nag daal ne daal am na nag ab yokkute nag bu am boo xam ne euh, nag nemmeeku nañ ko fii si biir réew li nga xam ne moo di Gambie euh, moom ki nga xam ne di Mufti Meng xam ne ku ñu nag ràññee la si rek li nga xam ne moo di nag waar li nga xam ne moo di askan wi si li nga xam ne moo daal àddina si moom nag wax euh, wax nañ ne daanaka nag daal ñëwam jamono ji si biir li nga xam ne moo di réew mi mu ne daal ab nag ñëw la joo xam ne daal daanaka nag dafa am ay nag mbir yoo xam ne moom la saytu si gannaaw bi nga xamee ne moom nag daal eh, moom nag daal eh, mooy ambassadeur wala daal eh, moom nag daal daanaka moom mooy fésal lépp loo xam ne ab kuréel giñ xamee si rek daal Abdoulaye It nag daal ñu ngi koy def si rek wàllum nag daal jàppale li nga xam ne moo di askan nga xam ne seen nag loxo jotul seen gannaaw li nga xam ne moo di kuréel googu di Abdoulaye It nga xam ne ab kuréel la goo xam ne dañ defaral dina jàppale askan yi ñi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw xam ne tamit ñu ngi amal lu mel noonu fii si biir réew mi rek mu ñëwoon nag nemmeeku ji nemeeku si li nga xam ne moo di kuréel gi nag seen nag liggéey yi nga xam ne jot nañ ko def fii si biir li nga xam ne moo di daal euh, réew mi moom ki nga xam ne moo di mufti meng euh, moom nag euh, daal dina wax ni daal ñëwam fii si biir mi nag mooy nag dam nemme ko li nga xam ne moo liggéey yi nga xam ne euh, kuréel googu di Abdoulaye Aid euh, def nañ ko fii si biir li nga xam ne moo daal réew mi gannaaw bi nga xam daal euh, wax na loolu sax moo ko indi pour rek mu waxtaan si ak njiit réew bu di président Adama Barrow mu nag wax ne kuréel googu nga xam ne moom nag daal moo tax mu ñëw fi di rek Abdoulaye Aid ab kuréel goo xam ne am na ay liggéey yu bëri yoo xam ne def nañ ko fii si biir mi jàppale askan bi nga xam ne seen nag loxo cotut seen gannaaw bokk na si daal daanaka lu ëpp si rek juróom benni si li nga xam ne moo di ay bohols yoo xam daal daal dinañ ko amal si biir li nga xam ne moo di rek daal euh, euh, réew mi bokkaan si tamit nag daal ay daal euh, téeméer si ay nit yoo xam ne daal dimbale lañ leen jàppale nag ñu nag faju seen wàllub li nga xam ne moo daal wér gu yaram daal dina wane tamit am na lu rek ëpp ñaari téeméer ci rek ay tuut tànk wala ay xale yoo xam ne daanaka nag daal kuréel gi di Abdoulaye Aid ñoo leen nag gàddul seen wàllub li nga xam ne moo di daal njàngane loolu yëpp nag daal nar nañ koo nag yokk di ko amal fii si biir li nga xam ne moo di réew mi moom ki nga xam ne eh, moo di daal mufti Mek mu nag daal di wax ne jàmm ak daal bi nga xam ne nemmeeku nañ ko fii si biir réew li nga xam ne moo daal Gambia mu daal loolu nag ko nag daal neex la waaye nag mu ngi mu ngay jëlloo njukkal li nga xam ne moo di nguur gi tamit nag daal si nag daal eh, seen nag liggéey ko am solo yi nga xam ne ñu ngi koy amal amal si rek wàllub li nga xam ne moo di daal euh, njëm euh, li nga xam ne moo di daal kanam euh, moom ki nga xam ne moo di mufti menk moom nag daal daanaka wax na ne juróom benni at jàpp juróom ñaari at ci gannaaw la géejoon fii si biir réew li nga xam ne uh, moo di daal uh, uh, Gambie gannaaw bi nga xamee ne moom ki nga xam ne moo di rek mufti meeg mu ne daal bi nga xamee ne daal jamono ji nag daal ñëw na fii si biir réew mi daal daanaka am na lu bëri loo xam ne wécceeku nag fii si biir li nga xam ne moo di réew mi mu ne bi mu wàccee rek daal la gis daal ay nag yoon yu bees ak ay tabax nag yu bees ne lii nag bàyyit ko fi woon juróom benni at jàpp juróom ñaari at si gannaaw bi nga xam ne daal géejoon na fi moom ki nga xam ne moo di mufti meeg nag mu ngi fi géejoon si weeru novembre atum 2018 gannaaw bi nga xamee si jamono jooju wala at moomu ñëwoon na fii si biir réew mi nag amaloon nag ab ndaje mag boo xam ne eh, ab ndaje waare la koo xam ne mu ngi ko amaloon si bayaal bu mag bi ñu xamee si Independence Stadium nekk foofu si diwaanu nga xam ne eh, moo di daal Bakau moom ki nga xam ne moo di mufti meeg jamono ji nga xam ne mu ngi fii si biir réew mi nag daal jamono joo xam ne si biir tukkib nemeeku bi nga xam ne mu ngi ko fi amal dina am nag ay nag béréb yu bëri yoo xam ne dina fa dem ay béréb yoo xam ne daal kuréel gi nga xam ne moom moo tax mu ñëw fi de Abdoulaye Ed eh, daal dinañ fa amal ak ay ndimbal bokk na ci nag jàppale askan wi nga xam ne seen nag loxo jot seen gannaaw gasal leen ay booxool daal di tamit jàppale ay nag nit ñoo xam ne daal dañ leen nag daal gàddul li nga xam ne moo di seen wàllub li nga xam ne moo di njàng ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo di xibaar ki ñu dénk ndombal tànk bi ñu xamee si commissionnaire général si kër googu ñu xamee si Gambia Revenue Authority di kër ki nga xam ne ñooy fayee ko taxe wala lempo eh, si biir li nga xam ne moo daal réew mi Yankuba Daabo noonu lay wu sàkku na si nga xam ne ñooy eh, saytu mbirub li nga xam ne moo di fayeeku eh, tax wala fayeeku nag daal lempo surtout nag daal ñi nga xam ne ñoo di réew ñi nga xam ne ñoo nekk si suufi nag Afrique sow jant na daal war nañoo gën a ñoŋal mbirub nag daal fayeeku tax wala lempo si ni li nga xam ne moo di rek nag ay réew li nag mu ngi ko war si rek ab ndaje euh, bu mag boo xam ne ñoom ñi nga xam ne ñooy saytu mbirum nag daal fayam tax wala euh, fayam lempo euh, bu mag foofu si réewum li nga xam ne si rek daal li nga xam ne moo di rek daal ab nag ndaje bu mag bi nag mooy fukk ak ñaareelu nag daal ndaje boo xam ne ñu ngi koy nag daal di si rek li nga xam ne moo di ndaje moomu moom Yankuba Daabo daal dina war daal lu aju ci wàllu fayekob tax wala fayekob li nga xam ne mu daal lempo mbir xam ne daal lu ñu gën a war a a ne nag daal fullaal la faydaal la ko gannaaw bi nga xamee ne daanaka réew yu bëri yi nekk si suuf li nga xam ne moo di Afrique soo jant na ñoom nag ñu ngi sukkandiku seen xam ne moo di koom eh, nag daal lu aj ci wàllu fayekoob taxe wala fayekoob li nga xam ne moo di naama moom Yankuba Daabo nag mu nag daal di wax tamit eh, lu aju tamit si wàllu ñi nga xam ne ñooy def liggéey bi loolu it nag lu war la ñuy beesal seen li nga xam ne moo daal xam-xam su ko defee nag daal ñuy nag mun a daal di méngu ak li nga xam ne eh, moo di daal jamono daal dina tamit nag wax tamit lu aju si wàllu jumtuwaay loolu it tamit nag daal lu ñu war a gën a nag ñoŋal la bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne moo di daal ay kàddoom moom commissionnaire général Dabo mu nag daal di wax ne tamit li nga xam ne eh, moo aju tamit si wàllu si li nga xam ne moo di sarta yi nga xam ne moo aju ci wàllu fayeeku taxe wala fayeeku lempo loolu it nag daal lu ama am eh, eh, solo nag daal loolu yëpp nag daal lu ñu nag war a bàyyi xel la surtout nag daal kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk wàllu fayeeku taxe wala fayeeku lempo si réew yi nga xam ne ñoo nekk si suufi li nga xam ne moo di Afrique sow janta ki ñu xamee si Alaaji Diallo moom nag lañ dénkoon nombal tànk bi ñu xamee si Director of Tax and Policy si rek Ministry of uh, Finance uh, moom nag uh, daal dina wax ne rek li nga xam ne moo di ndaje tàggatu gi nga xam ne moom la ñëw nag daal di amal nag daal ab nag ndaje tàggatu nag daal bu am solo la boo xam ne ñi nga xam ne ñoo koy nag daal di teewee nag daal dinañ gën a am ab xarañteef seen wàllu li nga xam ne moo di liggéey boo xam ne dina daal méngoo ak li nga xam ne moo di jamono méngoo ak tamit li nga xam ne moo di rek daal xarala nag daal yu bees yi si ndaje moomu Abdel Kader Sango moom nag mooy director of uh, WCO e office mu nag daal di delloo njukkal nguuri réew wu Gambie yi way teg daal bàyyut gannaaw Gambie Revenue Authority gi rek kër gi nga xam ne ñooy fay ko taxe wala l'impôt rek réew mi daal rafetlu na seen nag daal liggéey si nag li nga xam ne noonu lañ koy doxalee daal di nag daal méngoo ak li nga xam ne moo di jamono ak li nga xam ne moo di nag xarala nag daal yu bees yi mu ne loolu nag lu mu nag daal di euh, rafetlu te nag daal anam yi nga xam ne noonu la Gambie di fay ko taxe wala daal daanaka mbir la moo xam ne yeneen i réew nag daal mun mun nañ cee nag daal di roy bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne moo di ay kàddoom si rek daal xibaar nag daal gu mujj gi li nga xam ne moo di daal euh, baykat yi daal ñu ama am solo lañ ci li nga xam ne moo di réew mi daanaka nag daal daanaka si li nga xam ne moo di gafak réew mi nag daal daanaka ñoom seen nag loxo dina dugg lu bëree bari si li nga xam ne moo di nag daal gafak euh, nag euh, réew mi loolu waral baykat yi nga xam ne ñooy yeewoo si suufi Lower River Region ñoom nag jamono ji nag daal ñu ngi nag daal di xat lool seen wàllu bi nga xam ne moo di euh, tool yi gannaaw bi nga xam ne daal fi mu nekk daal daanaka li nga xam ne nag daal bayoon nañ ko si rek tàmbali nawet yi daanaka nag daal mu ngee nag meñña nag daal bu baax a baax pour daal fexe loolu daal euh, mu daal meñña daal di dunda be nag mucc ayib faaw tamit ñuy tamit nag daal di saytu seen rek li nga xam ne moo di tool yi bañ nag li nga xam ne moo di mala yi di kon nag daal di euh, yàq gannaaw bi nga xam ne ñoom euh, ñi nga xam ne ñoo di baykat yi ñu ne daal am nañ nag yaakaar ne daal seen nag nawetu nag ren dina nag daal euh, baax loolu ñoom ñi nga xam ne ñooy baykat yi nga xam ne ñooy nag yeewoo foofu si rek Lower River Region ndax bi nga xam ne ñoom nag ñu ngi bay euh, daanaka dugub maalo ak euh, li nga xam ne dugub kon gerte ak li nga xam ne moo di daal mboq bett na nag ki nga xam ne si Ibrahima Kamara moom nag daal dina wane mbéy nag mbir la moo xam daal lu mu nag daal doon na la si li nga xam ne moo di daal ay way juram moo nag wax na ne daanaka dinay faral di bay lu rek toll si daal ñetti hectare hectare gerte loolu lay faral nag daal di bay daanaka atum ren loolu la bay daal naka tamin bay na li nga xam ne moo di benn hectare li nga xam ne moo di nag daal mboq mu nag wax ne yaakaar la am si rek nawetu li nga xam ne moo di daal euh, euh, ren gi mu ne naam euh, nag daal am na rek daal ñeneen ñoo xam ne daal jàmbat nañ lool lu aju si rek wàllu li nga xam ne moo di daal engrais gi daal dañ ko nag yi jot mu ne loolu tamit nag daal yenn si ay naatangom nag daal daanaka nag loolu nag daal jàmbat nañ ko lool mu nag wax ne daal li moo sàkku daal mooy li nga xam ne moo di engrais daal ngelawaay nañ leen koy eh, nañ leen koy teel a jox ñu ñu teel ko nag daal di jot mu nag daal di sàkku tamit si li nga xam ne moo di nguur gi ak tamit li nga ne moo di banqaas bi nga xam ne ñoom lañ dénk mbiru li nga xam ne moo di daal mbéy mi war nañoo fexe tamit nag daal di nag daal lebal li nga xam ne moo di nag daal baykat yi li nga xam ne moo di engrais nag loolu tamit nag daal lu leen di nag daal euh, dimbale la nag loolu tamit ñu ngi sàkku si li nga xam ne moo di nguur gi ñu defal leen ko fexe tamit nag daal ñu di leen nag daal jébbal ay jumtuwaay lu si mel ni tracteurs fexe tamit nag daal ñu di leen tàggaat ñu gën a am xarañte seen wàllu mbéy Abdoulaye Daxaaba moom it nag ab baykat nag la ab ndaw la joo xam ne moom it mu ngi yëngu si bay mu nag daal di wax ne daal euh, daanaka ni nga xam noonu la ay wayjur mu daan béyee ba léegi moom noonu lay béyee ba léegi maanaam nag daal di jëfandikoo li nga xam ne moo di ay mala euh, di nag di ko nag daal di béyee nag loolu daal daanaka loolu nag la roy si li nga xam ne moo di ay wayjuram ba léegi si nag loolu nag la daal di euh, nekk mu nag wax ne loolu dina jëfe lool ñu nag mu see bay lu bare bari gannaaw bi nga xam daal daanaka loolu doo si nag mun a li nga xam ne moom nga nag daal di euh, euh, bugg a nag daal di bay mu nag daal di tamit nag ñaax li nga xam ne moo di ndaw ñi ne daal nañ gën a soob seen soob seen nag loxo si rek wàllub li nga xam ne moo di mbéy ne daal lu ama am solo nag daal mu ngi sàkku si rek ay moromi ndawam ñu nag daal euh, def ko mu nag wax ne nguur gi nag duñ mën a def lépp faaw nag li nga xam ne moo di nag daal ndaw ñi ñoom it nag daal ñu soobu si rek wàllu mbéy gi euh, daal bañ bañ rek di wax ne daal faaw rek ñu tukki mun a daal di tekki wala sax daal di jëfandikoo yoon ni gannaaw gi di tukki no loolu nag daal euh, samp kër bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne moo di ay cadeau li moo sàkku daal si rek ndaw ñi moo daal nañ futteeku delluwaat si li nga xam ne moo daal tool yi su ko defee nag daal jàppale seen bopp jàppale askan wi jàppale li nga xam ne moo di nguur gi Adama Sankare moom nag wa euh, euh, waa Badibou la waaye nag jamono ji ngi foofu si waanu jaara moom nag daal dina wane li nga xam ne moo di mbéy daal lu bari nag la koy indil gannaaw bi nga xam ne daal wax na ne daal daanaka nag bu béyee ba noppi nag daal dina siy njëriñoo nag daal bu baax a baax bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne moo di kaddu mu ngi sàkku nag si li nga xam ne moo di nguur gi nag daal ñu jàppale leen si li nga xam ne moo di daal ay nag daal euh, jumtuwaay ne daal loolu nag daal bu ñu ko amee dina leen nag dimbalee nag daal euh, bu baax a baax Fadouwa Keta moom nag ab baykat la di bay li nga xam ne moo di dugub moom it li moo sàkku daal si li nga xam ne moo di nguur gi daal nañ nag daal euh, euh, fexe nag daal euh, buñ nag daal bayee ba noppi ñoom baykat yi daal buñ nag jaayee seen i gerte gi daal li ñoo sàkku daal mooy nguur gi daal euh, nañ leen teel a fay seen li nga xam ne moo dal seen i koppar ne daal euh, loolu nag daal ñu mu ngi koy nag daal sàkku nag daal laata nag gerte yi di ñor bu ñu sukkandikoo si li nga xam ne moo di daal ay kàddu leen loo xam ne tamit sàkku na ko muy daal ay jumtuwaay ak tamit li nga xam ne moo di daal euh, fertilize fertilize di rek li nga xam ne moo di engrais loolu yi dag daal wax ne daal nguur gi war nañ war nañ leen si gën a nag taxawu nag daal bu baax a baax bu ñu sukkandikoo si rek Fadou Waketa di ab baykat boo xam ne mu ngi yeewoo foofu si suufi Lower River Region mbokk yi loolu mooy ndar képp wala mooy jeexal seen jotaay bu mag bi di jotaayu xibaar yi xaritu borom bi ak askan wi Ibrahim Khalil Gueye moo leen ko doon jottali ci kàllaama wolof jaajëfal leen si seetaan bi ak lu bi jaajëfal ñi jàppoon si xibaar yi ba mën a sotti jaa ngeen jëf